ñu ngi noonu ci finaal bi final ndaysaan individuel dox ci diggante Sokh soox ak Iba Kor ndaysaan Iba Kor ak Sokh Sokh Iba moo leen won ginnaaw ngemboo ngemb lu weex li Sokh moom ngeen jàkkaar lool mooy njool mi rek ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi ci ba tey ndaysaan Ibokor ak seex Sokh ndaysaan ñu ngi noonu Ibokor ndaysaan ak soox soox ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan Ibokor soox Sokh ñu ngi noonu ndaysaan ñaari xale yaa ngi ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu arbitre bi àtte na soox soox ak jubba koor ndeysaan saan bokkoor soox soox ñoo ngi ci combat bi arbitre bi sifflé waat na di bokkoor soox soox ndeysaan ñu ngi noonu ba tey di bokkoor daw na jël tànk soox soox di jël na ko da koy dëj wala déet jàpp na ci kaw ngemb la nu mu nar da koo takk da ko yanu na ko njool la da ciy génn dina la daan Dibakor bu la daane ah génn nañ laay laay lala public bi yuuxu nañ du yomb ñoom ñaar dañoo mën a bëre soox soox Dibakor ndeysaan xale yi bëre nañ bëre bi rëy wàccaat lii mooy làmb ndeysaan xale yaa ngi noonu Dibakor soox soox soox soox moo leen féete ndi joor Dibakor moo leen fete càmmoñ ndeysaan ñu ngi noonu Dibakor soox soox ndeysaan ñu ngi noonu Dibakor seex soox soox bi yoon ku ci jàppaat sa morom mbaa bi du jeex Dibakor soox soox ndeysaan du bakoor soox soox ndeysaan maasu sama doomu nday borom Leewtoo production cadreur bi gën a njool ci àdduna macha allah yàlla sa jàmm yàgg arbitre bi àtte na ndeysaan ndeysaan arbitre bi sifflé waat na dox ci diggante Dibakor Sagne ak see ak soox soox ñu ngi ci compétition ba léegi finale individuelle ndaysaan catégorie quatre-vingt-sept kilos ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan di sañ ak soox soox ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar wàllu 86 kilos bi la ñu nekk Dibakor sañ ak soox soox ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan Dibakor sañ ak soox soox ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Dibakor sañ ak soox Sokh arbitre bi àtte na kaay leen avertissement ñoom ñaar ku nekk am na ñaar Dibakor sañ ak soox soox arbit baa ngi wax ak ñoom bëre leen bu ci kenn amee avertissement ma jox moroomam victoire dox ci diggante Dibakor sañ ak soox Sokh ndeysaan ñu ngi noonu Dibakor sañ ak soox soox ndeysaan ñu ngi noonu Dibakor sañ ak soox soox ndeysaan ñu ngi noonu Dibakor sañ ak soox soox ndeysaan daw na jëli ko sox sox jël na ko waaye Dibou da koo séen da koo séen ndeysaan Dibou da koo séen Dibou sañ ak sox sox ndeysaan Dibou Kor sañ ak sox sox ñu ngi ci finale individuel yi 86 kilos ba tey ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi ci Dibakor Sagne ak Sokh Sokh ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Dibakor sañ ak Sokh Sokh saan ñu ngi noonu fàqat sox sox faqat na ko léegi Dibakor bañ na daa jeex na ñoom ñaar dañuy yegg si waat nañ at bi bi na Dibakor sañ ak soox soox dellu si ci prolongation bi ñoom ñaar noonu jël mu bañ sànni na ko jàpp na ko ci ginnaaw ndeysaan ndeysaan mu ngi koy buux Dibakor Sagne mu ngi koy buux ndeysaan Dibakor Sagne ak Sokh Sokh ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaare ngi noonu ndeysaan mbot na ko day génn day génn génn na da ngay jël avertissement ndeysaan sox sox da ngay ñàkk dana avertissement trois jeex na jeex na jeex na